posé question dafa nga leeral ma pour ma gën a mën a tontu. waaw d'accord ñoom doute bi ñu am fan lañ ko am à quel niveau du processus électoral la ñu wax ne ki la ñu am doute bi. souligné nañu bu baax déjà euh, le fait que euh, lii li nga xam ne moom mooy fichier électoral bi yaa que le régime qui l'a alors que moom dafay dem jongante ak ñeneen normalement na mu ko amee. à sa disposition noonu la ko yeneen acteur politiques yëpp war a amee à leur disposition wax nañu itam seen seen limite par rapport ak parrainage yi ni muy doxee ak risque limite quelle limite bi ni niñ ni ñu koy wee ñoom proposé nañu euh, la manière de collecter pour éviter doublon yi expliqué nañ ko euh, par par rapport ak loolu noonu euh, voilà yoo yooyu noonu la ñu expliqué loo xam ne ñoom jàpp nañu ne bu ñu ko bu ñu ko bu ñu bu ñu ko. mais da ngaa bëggul tontu ci question bi. léegi nag c'est-à-dire li ma koy wax moom moo ko gën a xam. mais moom moo ko gën a xam parce que suivre na ko. waaw léegi yow lan moo ci sa xalaat ci tënk. xam lan mooy sama lan mooy sama xalaat. Mhm. gis nga Sénégal fii. Mhm. kenn mënatu fi sàcc ay élections kenn mënatu ko fi. Euh, les élections sont toujours libres sont sont transparentes parce que yow résultat yi suy génn ci bureau de vote bi. yéen journalistes yi yéen a koy njëkk xam les responsables politiques parce que yéen a ngay am droit dugg fa taxaw ngeen ngeen wax ko ci rajo yeeg télévision yi man ak sama morom yépp luñ ci xam ci yéen lañ ko xamee donc foofu kenn mënu fa sàcc nit léegi ensuite nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si si parti si parti politique yi kenn kenn ku ci nekk yow xam nga ne Sénégal gi fichier électoral bii loo xam ne mën na laa yàqal nekku ci parce que Yewwi presque amoon nañ cinquante pour cent ak ñi mu àndaloon opposition bi en général affaire bi assemblée nationale presque ñoo fa yemle est-ce que ñoom loolu fan lañ ko jëlee loolu ci fichier bi lañ ko jëlee n'est-ce loolu ba léegi xamuñu fichier bi la moo ci nekk fichier bi. administration yéen rek administration moom moo ko yore. administration nag constitution du Sénégal dafa ne kii gañ gouverne. kuy gouverner yaay yore instrument de de gouvernement yi donc loolu ñoom mënuñoo fexe ba euh, duñ ko ñu am ko heure am am na na droit dañ ko tiiree droit la ñu am ko dañ ko tiiree su waxtu wa jotee kenn ku nekk ñu jox la ko parce que man élection yi passe yëpp dañuy tiiree élection jox ko tous les partis politiques kenn ku nekk am ko mais li nga bëgg nag gars yi di manipuler fichier bi ëllëg su ci problème amee kan mooy responsable c'est l'état du Sénégal qui est responsable gis nga gars yi nañu dem defi nangi dem seeti militant yi nañu dem defi campagne mais li ñuy def nii loolu mënta tax ñu gagné su fekkee dañu ko gagné il faut ñu gérer temps bi monsieur